waaw sister Maria pour euh, dire euh, que la justice est un grand corps malade pour man ce serait un peu exagéré. Mhm. parce que euh, justice dafa yaatu. Euh, malheureusement ñun euh, Sénégal dañuy faral di am une vision réductrice de la justice cantonné euh, ko ci l'aspect pénal cantonné ko aussi s'il est s'il y a des acteurs politiques qui sont impliqués alors que la justice va au-delà de ça tey jii boo demee tribunal de commerce les choses normalement boo demee ci. tribunal civil les choses fonctionnent normalement. donc ci mille dossiers ñaar ñett wala ñeenti homme politique mën nañ ci impliqué wu impliqué wu en matière pénale rek ñu ne justice bi baaxul loolu quand même c'est un mauvais procès qu'on fait à la justice. juge yi dépendre luñ ci exécutif les juges ne dépendent pas de l'exécutif euh, ci biir juge parce que euh, magistrat yëpp du ñu juge y a le mooy les magistrats debout y a le siège mooy les magistrats assis ñooñu amul kenn ku ci dépendre euh, li nga xamante ne nag moom mooy le maillon faible de la justice bi nga xamante ne à chaque fois moom moo tax ñu naan <clears throat> am na problème ci euh, impartialité wala indépendance su justice parce que dama bëgg fàttali tuuti rek les phases euh, du procès pénal procès pénal boo dugalee par exemple euh, plainte mu dem police wala mu dem gendarmerie ñooñu dépendre tuñ armée dépendre tuñ ministère de forces armées ni d'intérieur dañuy changer statut tudd OPJ de police judiciaire qui dépend du procureur ñooñu bu ñu defee seen enquête def soit transmis jox ko procureur procureur il est parti au procès pénal dafa far maanaam bu recevoir sa plainte ba jàpp ne yow mii nii kat euh, lii ñu la wax euh, war na ko poursuivre bu boobaa moom day jël parti ci yow et on l'appelle maître de l'opportunité des poursuites pas maître des poursuites kese mhm. mais de l'opportunité des poursuites est-ce que les poursuites sont opportunes kooku noonu bu paree ci enquête am par un réquisitoire euh, définitif dafay jox dossier bi un juge d'instruction kooku faru moo tax ñu ne day instruire à charge et à décharge parce que c'est un magistrat du siège donc le pouvoir exécutif ne contrôle plus à travers euh, jusque là. Mmh. parce que bu jógee ci loxo procureur rek. il ne maîtrise plus rien donc bu ma delloo suwaatee ci procureur procureur effectivement euh, si c'est le procureur de la République dépend du procureur général le procureur général dépend du ministre de la justice le ministre de la justice est nommé par le président donc par on voit que ni c'est le président de la République qui est le maître des poursuites parce que am na sañ-sañ jox ordre le procureur le la procureur le ministre de la justice hmm. bi nga xamante ne moom mooy xool ku ñuy topp ak ku ñu war sa topp de là on voit que ni am na euh, implication de l'exécutif sur le judiciaire mais yemul foofu noonu la carrière des magistrats maintenant boobu ça dépasse le procureur mooy le le conseil supérieur de la magistrature bi nga xamante ne c'est présidé par le président de la république vice-président bi nekk son ministre de la justice donc beneen immixtion de l'exécutif ci biir euh, judiciaire mais yemul euh, le pouvoir judi législatif exerce une influence sur le pouvoir judiciaire parce que moom moo koy jox budget donc kon moo ko war a wax li muy def ci moyens yi muy defee maanaam nee nañ celui qui paie commande c'est l'Assemblée nationale mm -hmm. qui paie l'autorité judiciaire parce que moom mooy voter le budget euh, de l'administration de la justice donc kon gis nga ne mu ngi subir influence yu bari maintenant influence yooyu nag est-ce à dire que ni euh, dossier bu ñëw rek dañ koy traité de manière politique